ci weddi lu bëri ak bidaaloo lu bëri mais mën na laa musalit ci dugg ci bida mu ne wal amru digle bil fi'li ci jëf al muhim al muhim bu am solo al munxatim bi aji war amrun digle la bihi ci moom wa billaji ak ki nga xam ne yetimu dana war dana waree bii ci moom maanaam alwasail la ahkaamul maqasid wasiile yi dañu am attee jubluwaay maqasid yi moom la ñu xool ndax jubluwaay yonentu la woon du jubluwaayam mais fi ñuy jaar ba yegg foofu moom duñ xool ndax yonentu fii la ko jaare woon wala jaare foofu foo mën a jaare rek baax na buntu am solo nga bo xamne ne dégg ko dina tax nga mën a dégg lislaam bu baax wax baax tënk bi moy al wasailu la ahkaamul maqasid la lay xeggale ci jublu way bu yonent bu bëggoon rek lu baax la loolu war borom xam-xam yi bañ demé gis ci ahadis yi yonentu dafa bëgg ñu jottali xam-xam balighu anni walaw aaya dilee eh, ko saxaaba yi dañ daan bañ bind xadiis ndax bañ mu jaxasoog alquran ñoom bañ demee ba xam ne buñ bindut jot li googu du mën a am dañoo bind taalif ay téere loolu lépp nañu ci jublu mooy maqsad bi yonent bi bëggoon mooy jottali diinam ji nañ ko def dilee nag façon yi ñu ko jaaree bokkut ak fi ko saxaaba yi doon jaaree bokkut ak fi ko يرنت بدون جاري اي جمعني بوكل موتاخ ني ني سانجي بيندي اك تاليفي وسيله لا بور مانا سنه مانا ووتو خم خم تا مقصد بوبو مورن مقصد يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم كون ديني دا ngay خول جبلو واي بي ناخ لي جبلو واي يونت لو هونول ديت يون بيكو واي جاري نك بول كوكو اللهم لو ما يون بي نيكو حرام Mm-hmm. yoon bu nekkee lu xaraam moom wasiila boobu moom xaraam na mm-hmm. lu xaraam bu dee moo lay yeggale ci ci ci ci ci maqsad jubluwaay bu yonent bi woon déedéet mm-hmm. ndax yonent lu mu tëral rek mën ngaa jaar ci lu baax def ko waaw ok da ngay da ngay ci lislaam waaye da ngay jaxase góor ak jigéen ñi ñuy fecci da ne loolu mooy tax nit ñi gën a mën a ñëw wasila eh, boobu mooy wasila ab lan loolu loo xaram la kon di léegi da nga bëgg ñu dugg ci lislaam it doo leen wooyee noonu moom ndax loolu wasila boo xam ne dafa xaram jëmmi wasila bi ci moom dafa xaram ko aay li yonentu aay kenn sañu ko def bu la ci nangam rek baax na de lépp lu yeggali ci lu baax lu baax la waaye fekk lay yeggali ci lu baax noonu nekkul luñ aaye bu dee moom ci moom dañ ko aaye ñaar moo ci mën a am nga woo ci nit mu ñëw jaaree ci bu baax dëgg la bu baaxee baax na waaye li nga doon def moom xaram na wala nga woo ci nit mu ñëw gën cee yàqu sax ko kon kay wasila bu yegg ci lu xaram sax boo ko woo nit ñi ci xam ne fecc àdduna lañ ciy lañ ciy dund kon loolu wasila bu yeggee ci lu xaram jaxase góor ak jigéen mu yóbbee leen ci njaalo te boo ko defutoon du njaalo loolu loolu du wasila bu yeggee ci lu xaram moo tax lu xaraam moom boo ko utilisé rek ñaareel daf lay yeggale ci lu xaraam moo tax ñu aaye ko far waaye lépp loo xam ne wasila la bu lay yeggale ci lu baax rek da nga def mm-hmm. bunt bi bunt bu am solo la ci diine mm-hmm. dégg ko daf lay noppal xam-xam nag ak jàng du benn mm-hmm. tawfiq yàlla ak jàng du benn nit mën a jàng lu bari wax dëgg yàlla waaye yàlla may ko tawfiq muy weddi rek loolu waral mazahib yi wasiila la pour wuttu xam-xam ñoom niñ doxalee duñ xool ndax yonentu daan na ko doxaleem duñ ko daan doxalee loolu kenn du ko xool ci wasaa'il yi ci maqaasid lañuy xool maqaasid bi moom jëmmi ibaada bi ndax yonentu santaane na ko wala santaane ko jubluwaay bi ndax bokk na ci jubluwaay yonent wala bokkul ci loolu lañuy xool mm-hmm. mais yoon bi ngay jaar moom doo xool ndax yonent jaaree na ko fii wala jaarewul ko fii yoon bi ngay jaar daa bu xaraamu luñ ko fenn kenn mënu la ci weddi mm-hmm. moo tax masaay bi ñu ko tuddee ko Malik mazhabu Malik mm-hmm. ak yoon yi nga ko jaaralee ci xaaj sart yeeg sunna yeeg teqale ko tafsir ko wutal ko ay buntu taarif ci ay téere ñu ne lii mooy jàngale Malick wasiila boobu yonentu mosu ko def mm. saaba yi xamuñ ko mm. ñu xamuñ sax li Malick bay mazhab Malick mm. waaye maqsad bi mooy wëttu xam-xam bi yonent bi xamoon saxaaba yi xam ko mm-hmm. kon nuñ ko mën a defee baax na mm-hmm. dem nañ ko defee xaraamul rek léegi nag bu fekkee wëttu xam-xam jaar na nga soppi ndax jamono boobu loolu laaj wuttu bakkan bi nga xam ne moom mooy résultat suñ xob jarul nga soppi su fiyankee ñoom pour xibsu sa nafs xibsu sa xol bi nga xam ne moom la ñu doon tu ne bu yàqu lépp yàqu moo ëpp solo kon kon xol boobu war ñoo xam ne dañuy ñu la mën a wax ci xol ñu néew la mën nañ laa jàngal lu ne masala mën nañuy faram fàcce ko waaye feebari xol lu koy saafara ñi hmm. si a wax ñu néew la te yonentu woon na loolu bu yàqu lépp yàqu bu baaxee lépp baax kon kay war naa am lu luy saafara jàngoro yi mm-hmm. kon souvent kii ci loolu la ñuy dox mm-hmm. moo tax seen sàrt yi ñu tëral seen tariqa mm-hmm. ak condition yi yëpp loolu kenn du ko xool ndax yonentu nii la tëral doon sàrt seeg nangam mais li ngay xool mooy maqsad bi benn xadis doon si xol bu baaxee lépp baax bu yàqoo lépp yàqu te ñoom xol moo leen tax a jóg fi ñuy jaar bu xol ñoom ñoo ko xam ku nekk li si li nga taxasus yaay xam ban tarix ngay jaar boo mën ko xefsu boo amul taxasus ci wàllu su bakkan noo ko yeree xol noo ko yeree ba nit ki nekk nit koo xam ne dafay jublu yàlla ba lépp bàyyi ñu ko xam ñoom ñu xam nañ ban wasiira la ñuy jaar ba yar ci nit ba tënk nit ki ci loolu boo xoolee ni mu borom mazaay amee ay charte yoo xam ne mazaay bi charte yoo xam ni kii lii mooy chartam kii lay jaar ak yoon wi ñu jaar mu wuuteeg yoon yonent bi noonu la ñuy tamit amee seen sàtta ci seen wàllu tariixa yoon wi ñuy jaar ba yar bakkaru nit ki ak xolu nit ki hmm. yooyu wasiila yooyu duñ xool na yonent nii hmm. bi fenn si jëf almuhim bi aji am solo hmm. almu xatim bi aji war amul lii rek am loolu digalaal nañ la ko <clears throat> هذه القاعدة تنقل مفيدة بأم جرين فاني مصرف من جانجل نكو هذا يقولك ألم ندقل بشيء جدار أم ندقل بما تنهي قم لا يتم دمر إلا به المجموم بين ندقل بالمرك لأن ندقل على وسيلة به يعني دي ولكن المؤلف ويتاكل يقول له وقت ولا مودي غي بفنسي المهم بام صلو وظاهر كلامي لفنتي وهم ان فيها ان هذا نري في واجب تشرو ور لا فقط دون دا مهم مول ور المحتم فك ديرت ميم لو سوب لا لا تي غير لو سوب لا لو ور لا لا تي غير لو ور لا لو سيب لا لا تي غير لو سيب لا لو حرام لا لا تي غير لو حرام wala am na naka digle bi waajibi ci lu war am na digle bi bii ci lu war loolu bu maa ki nga xam ne laa itam du mat moom lu war la illaa bihil moo ci moom dafa mel ni loolu la fekk déedéet gën naa yaatu loolu walakin saxi waaye lu wér xilaafu zaalika mooy wuteeg loolu waa nal am ra naka digle bi seen si dara am lu digle la bii ci mbir moom wa bi maa ak ci nga xam ne laa itam du mat illaa bihil moo ci moom sababu moo xam kaan nekk na waajiban di aji war aw mustahaban wala luñ sopp lépp loo xam ne mooy tax liñ santaane nii nga mën ko def rek loolu luñ santaane la bunt bu am solo mi nag ci diine hmm. borom xam-xam usul yi ñoo ko tëral léegi hmm. ñàkk xam usulu diine yi mooy tax ñuy jaxase ci front yi hmm. nga def dara nga laaj la yonentu ko naa xamu ko woon ak la mooy kii ak fu ko yonentu def ak gàmmu sax dangay gis ñu la ci rey ak wax ji jeex yonentu yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi def naa ko muy royu kaay pour yéen comme nekkee royu kaay kay lépp luy xam ne yonent bi santaan nañ ko ki nga war a roy kay wax nañ la xam ko kuy taxawal dara nag loo xam ni defut dara lu may xamal la ki nga war a roy naa ko loolu bi daal parce que defeewu ko nii loolu wasiila la ci loo xam ne nii mamuur la gàmmu du dara lu may wasiira ci xam yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. ko nit di bëggee bëgg di débat mel ni loo xam man daal léegi affaire bi jaxal na gàmmu mm-hmm. du dara lu may wasiira ci xam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. saxaaba yi soxla mu yoon nga leen kii mooy yoon toog fii la jàpp su ñëw dund ak moom waaye bu nee ba jamono ñëw nit mën a toog jàngiwut yittewoo mbiru àdduna yow lu mu dee dee nga dajale at moo xam ni xanaa lu mu ndaw ndaw at mu mën a ñëw nga wax ko ci yonent bi nii la meloon mu mën a roy loolu لولو لنجي دفا ميم بوكو يونس دفا ونون تي لو جادو باسكو وسيله الى الواجب خم يونس خم سورو اي كاي دفا وار كون غام سو بو نيه نغي فوفو واجب لا سي كو خامني خمو دارا سي يونس تي صلى الله عليه وسلم يعني كومبران نون بوكو دو غام موي تخاجو مي دا ماي بوغي خمال رك نلا الوسائل لها احكام المقاصد بوي خول فوفو دو ام بروبليم مي بوي خول سي جيمي وسيله بي نغي نانكو ووتال تاكسي affaire dangay am problème hmm. ku la sant yéegal ci kaw wax na la jaaral ci escalier hmm. Hmm. dégg nga fen kaani bi nekk na waajiban di lu war lañ santaane fu maa nga xam ne laa yetimu du mat al waajibu war illaa bii mooy ci moom foofu moom waajibu lu la wayn kaan nam nekk ne loolu ñu santaane mustahabu di luñ sopp xam ne laa yetimu du mat al mustahabu lu ñu sopp illaa bii lu mooy ci moom foofu mustahabu lu ñu sopp la waaye problème bi mooy diñu li ñoo jàngatul bu dee dañ koo hmm. sopp la la cee xeggale li ñu sopp la wa hunaaka am na xaayidatun tënk aham bu gën a mat mais xaalis xaayida ci biir tënk ànd xolumaay ci borom xam-xam waxiyi hmm. mooy alwasailu la lay ci mbiri hmm. laxaa ñeel na ko ahkaamul maqaasida attee jubluwaay roy yonent bi lan la kooku waajib la lépp loo xam ne dafay xam ne yonent bi moo xam téere booy taarif la xam la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo xam conférence boo invité nit ñi rek mm-hmm. xamal la yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. moo xam gàmm la nga dee ko def an ak at ak ngir bañ ñu yokkat mm-hmm. xamal la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax moo xam danga koy def euh, ay cours di ko jàngale ci école yi di ko bind ci table yi xamal la yonent bi sallallahu alayhi loolu lépp lu sa gàmm sama ay adil yu bëri waaw waaye booy tënk lislaam ci waaw lu tax diw dafa kóor lu tax diw dafa wutoon eh, ci jamono yoo xam ne bokkuñ ci nangam yi solo hmm. hmm? hmm? hunaak am na qaa'idam ahkam wa ala hada ci li naqul lañu wax ne maa kaan la nekk nag wasilatan di yeggale li waajib ci lu war foo moom waajibun war la wa maa kaan la nekk nag wasilatan di yeggale lil mustahab ci luñ sopp mhm. foofu mustahabu luñ sopp la mhm. wa maa kaan la nekk la nekk nag wasilatan di yeggale lil muharami ci lu xaraam mhm. foofu muharamun lu xaraam la wa maa kaan la nekk nag wasilatan di yeggale lil makruhi ci luñ sib foofu makruhun luñ sib la wa maa kaan la nekk nag dagan la waaye nag moom jar na xool ndax lii moo doon jubluwaay yonent wala déet mhm. bu ñu wóoree ne lii de jubluwaay yonent la mhm. wasiila bi nga xam ni dafay xeggale ci loolu mhm. dëgg-dëgg wasiila boobu jaagu rek la mën a def ndax kurus ci wasaay la boobu lu mu lay yeggale ci nga compte li ngay compte te doo jub yonentu daan ci kër di ko def ci lim bal sax moom tarixa da ko yoroon parce que daan def suba ak ngoon tur la mu woon rek comme ni nga xamee ni abwaab yu bëri ci lislaam amu woon tur fiq amu woon tur mhm. abwaab amu woon ay nangam mais mhm. yonentu daan santaane azkar sabaa wal masa mhm. daan santaane tarbiyatu nafs wal qalb daan wax ci xaqaayiqul asiya hmm? dafa yare ci lépp waaye lépp benn la woon ci jamonoom daal mën ngaa wax ne daa mel ne jàngalekat boo xam ne ni mm-hmm. al alimul mawsuul maanaam lépp dajal na ko mm-hmm. waaye si jàkka ji lay toog rek mën naa jàngale naxu fiq luxa waaye du waxee ci fànn bi moo tudd naxu yépp jaxasoo mm-hmm. ñu ba jamono ñëw gars yi dafa ab école ne classe bi mooy ibtidaa lenn si mu doon jàngale ibtidaa bi rek ngoy fekk fee nangam ñu ne fànn bi mooy nangam fànn bi mooy nangam wutal ko ibtidaay wutal ko indaad yi ko sare bi hmm. léegi tasaare ko nag wutal ko ay abwaab ak ay bunt wutal pour ñu gën a comprendre li leen waa ji jàngal léegi hmm. yàlla benn la rek hmm. yi rek mu des waa ji ambaaratu xalam gi amul moo a matal bu as boobu moo gën a wér la day naa waas baa mujj na kon la day naa fu ñun siraat ambaaraat ñetti waxin bu la neexee al wasaayilu jotliku kaay laxaa ñeen la ahkaamul maqaasida attee jubluwaay mhm. bool ne maa la nga xam ne laa yetimu du mat al maamuur luñ digle lu may ci moom mhm. foofu moom maamuur luñ digle bihi mhm. ne maa la nga xam ne laa yetimu du mat al waajibu lu war illaa bihi lu may ci moom foofu moom waajibu lu war la li nga xam ne mooy tax na ma def luñ digle luñ digle mooy tax na maa def li war kooku lu war la waaye nag bii moo gën a matale wasiila bii lam lay yeggale la ñuy xool alwasail la ahkaamul maqasid wa amuha bu ci gën a matale al ula bu njëkk bi su ma saani topp ñaare bi su ma saani topp ñetteel bi wal mu alifu taalifi kër bi takkala ma waxaala saari sa tijaaj ñetteel ji faqat doom mu joxe ci misaal ne kal amre ni ki digle bi salaat si julli amrun digle bi wu doy ci njàpp kulusee lépp lu nekk yufra du dañ ko farataali salaatu ñeent julli ba ndiglee julli lañ diglewaale jàpp lañ digle wala farata yooyu fekk jàpp diglee boppam la farata yi diglee boppam julli la bon moom laa wax ne ba mu digle bañ diglee julli rek wala boog bañ diglee jàpp lañ diglee jënd ndox boo amul ndox nga jënd ko nga seeru bu dee yow jàpp li daf laa war tàmbuloo jëndee jënd ndox mi daf lay war loolu wasiila la dégg hada misaalu misaal bi xeeru saxi wérut kal amr bi siraati am na bi wudu li anal wudu ndax jàpp maamur digle bii ci moom ni zaati ci jëmmam jàpp moom digle boo xam la xaala wana taala yàlla mu ko yaa ayyuhal lazina aamanu yéen gaa ñi gëm yàlla idaa qumtum bu ngeen jógee saar jëm si julli faxsilu na ngeen raxas kon lii digle boo xam la digle ko nag julli la topp moom ولكن المثال واي مثال اسف بوير الامر موي ديغلا بي ودوي سي جاب امن ديغلا لا بي شراي المايس جين ندوخ لي ودوي نين جاب فلم يكن بني كو خاندي انسان فدوم ادم ما ندوخ وحانا موتي وقت صلاه وقت جليغي ولما ندوخ مي يباو نين كوي في اسواق تي مارشي فين نك موم يجيب دنا علي سي موم شراي الماي مو ما دام فسخنا قادر دا جاتن هو مي رنغ نور جين صحيح مثال بوير ان يقول الامر ديغلا بي ودوي سي جاب am lu digal la bi ci raad si jënd ndox mm-hmm. ndax jënd ndox mi dafa topp njàppale rek mm-hmm. waaye njàpp moom boo xoolee du julli sax fañ ko def yu bëri balaa nga ko def nga jàpp daana mm-hmm. wudduwaa ndax njàpp waajibun lu war la walaa yitimu ndox kon jënd ndox dafay war yéen kon fa ci raad maa misaal misaal li nga xam ne zakaroo tudd na ko al muallif taalikat bi fii nekk na si nazarum xoolaat waa diwoon gu leer yaa ngi ambal ndax digle bi mu doy si njàpp. Mm-hmm. mustaqinu aji bi zaati ñeel jëmmam. Mm-hmm. jàpp moom lañ ko digle. xaaral mm-hmm. wax na al muallif taalif ko bi ne wa kullu shay lépp lu nekk yu faral ko farataale salaat ngir julli. xaasaale ay dem ba tey fii nekk nasarum xoolaat. laalaan maful ndax luñ farataal xale bi nga xam ne jib dana wàllu salaat ñeel julli. maful du luñ farataale fi as ci ci cosaan. farataay julli moom it santaane bu xam la. فلو قال أبوه قائل أي وقت الأمر دقل بسرار سجلي أمر ما دقل بستر البدن سي أمور يرم بي نيوه لأن الله سبحانه نقول لهم ولو يقول أستر أمور يرم ما أمور من دقل بيت ما أمر من دقل مستقر ببير laakin waaye law xaala bu waxoon xaayal aji wala si nekk andi fa man saw mun yére yasturu nii bu may suturaal mhm. wa sitru te suturaal yaram mhm. sartun saafara li si xaati salaat ngir wér ak julli mhm. la ñoo ne ko istari jënd saw ba ne yére bu juban ci lu war kon bañ la digalee nga suturaal sa yaram rek lañ la digal ko mënee saa ma wal muallif taali ko rahimahullah yàlla ko na bi am seeti ci misaal waajibatun bu war bi zaatiyaa ci jëmm dafa joxe loo xam ne dafa war fekk déedéet maanaam yooyu ñu war war ba pare loolu ci yeggale rek moom day mujj nekk lu war mhm. xam la an takkoon a njëkk mu nekk mi maa ci nga xam ne laa yitamu du war alwaaj daa yitamu du mat alwaaji bu aji war laa bii mooy ci moom yii mhm. balaa ñuy mottali julli dafa fekk ñoom seen bopp dañoo war ba pare mhm. kon ñoom dañoo war ci seen jëmm waaye nag aussi loolu ci lu war ba misaalu maa laa yitamu misaal loo xam ne du war al mustahabu luñ sopp ilaa bii lu mooy ci moom foofu moom mustahabu luñ mooy rajulun góor lay si nekkul maa ànd moom si waakum socc mm-hmm. wa si waaku socc li saadi pour julli mm-hmm. woo moom socc bi baax ñu ngi koy jaay la baabil masjid ci buntu jàkk ji mm-hmm. fa nag ñu wax loolu ñu ko istari jëndal si waakum socc jënd gi lan la sunna la wa shiraa jënd gi sunnatun sunna la waaw duñu xool jënd gi yéen a defoon na ko leneen ndax moom laa yetimu du mat al mustaxab buñu sopp illaa bii li ma ci moom fekkoon mu nekk mustaxaban di luñ sopp xam moo nañ ko may socc di sax yoon wi muy def daal bu mën am socc gi rek loolu sunna la mën naa dem wuti ko sax du force jënd rek moom nga mën a amee socc hmm. mën nga wuti mën nga ko waaye daal fexe daal ba yegg ci am socc gi daal loolu mooy li nga xam ne laa yetimu al mustahab bi hmm. nekkul benn bii bi kese ba hmm. misaal àqra benn misaal insaan doomu aadama wul da jur nañ la woñal ko wala dum doom wala si nekkul la day fi moom saatum gàtt ba maa wa ànd nag moom daraay mu ay dërëm lay sari naqul li ñu wax doon yëpp istari dina saatan gàtt wujuban ci lu war mm-hmm. dana mën xaala ji ko wax bi wujubi aqiqati ji war a ngént mm-hmm. boo jàppee dafa war am na xaalis kon jënd gàtt bi da koy war question baama dañu sopp mu jënd gàtt dana mën xaala ci ko wax bi seex baaba ci sopp mm-hmm. bu fekkee nag gàtt gi mm, jënd ngént dañ ko sopp rek jënd gàtt dañ koy sopp yaa ngi gis xaayida kon al wasaayil bu ko boolee bu ko jaawalee maqaasi di leen kon al xaayida du xaayida التي بين قلبه هي مؤام مغرمت من الذي جينا خمس ذكرات ابنك المؤلف تارك مما لا يخم لا يتم دمر المأمور من دلي إلا بدمج مم فهو مأمور من دلي يعني دل الوسائل لا أحكام المقاصد بس هو خير أن فهمنا من أي من يفك مم كيف ما يتحمل مم سوى أول كذي إذا يعني فك لما لا يقدر يشيل يعني مم أنا بوزي جاري بونغ يقولون لأني أنا مم من دلي wal xaaya xaaya alati bi nga xam ne mu ahamu moo gën a matale hmm. mooy alwasaayil la lay yeggale ci mbir yi hmm. laxaa ñeen la ko ahkaamul maqaasid ate jublukaay hmm. waaye moom tan tabiqu dana dëpp ala amsalati saabiqa ci misaal yi jiitu yëpp boo ko boo ko dëppalee misaal yi jiitu mu jaadu wala ñeen la ko misaal àqar beneen misaal la a góor na silaaxan li yaqtala ku mu rey bi mu see dana rëbb fil xaram ci xaram bi dafa xaram rëbbu ab rab ci xaram bi dafa xaram dégg kon jaay ko lu tax muy rey rëbb ci xurum bi dafay xaram mm-hmm. lana wasaay ndax jot ligukaay yi laa xam ne ne ahkaamul maqaasid ate jaay ma jaay ma paak looy def sama dëkkandoo laa xuróob dama ko bëgg a jëm paak nga jaay que lii aussi jaay gi ci boppam dafay xaram jaay si cosaan dara nekku si de waaye bu la wóoral bi waaye daf ci jot li ko def lu xaram nga jaay ko dafay xaram yaa ngi wa wax wér ci naa bu ñu neexee adal naa ñu jéng an bi naa ñëw albay mu jaay ga xaraamul lu xaram la xawli taala ngir wax yàlla dinaa wala ci bakka wala duwaale ak noonu ko xool ci usul nga dàq ko mën nga ko mooy dimbali ko ci lu hmm. dimbali sax hmm. waaye ba léegi dimbali leen waaj rek su ma xaala moo rey moom laaw yàlla na ko yàlla yërëm moom taarif kër bi ne waxay suma in jiya buñ indee പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ baa ngi noonu hmm. buntu am solo la maanaam hmm. santaane bi rek ngay xool hmm. yàlla bu waxee yaa wala ñu amul kuru naa yi nga xam ne dafay tënk leen si tudd yàlla lu bari kenn mënu ko dàq bañ santaane mbokk yu xamante ak di dimbalante li yi di groupe whatsapp ay mbokk dajee fa eh, ak tuur yi maanaam dimanche par dimanche ñu waxtaan dem ci kër dengam naa xamante loolu bañ santaane mbokk yu xamante rek lañ santaane walla lu mel léegi nag wasaayil yi day wute ku nekk wasiila bu muy fexee ba récupérer ay mbokkam xamante ak ñoom waaye wasiila boo xam ne dafay lu ma ci mbokk yu xamante di jokkoo di mën di dimbalante loolu dara nekkut ci kon yëngatu yi ñuy def nii xarakaat yi ñuy def nii duñ ko xool waaye fam ñuy eggale ak lan moo tax a jug xaraka bi loolu la ñuy xool gis nga lii su boo déggee xaayda bi bu baax a baax a baax a baax da nga mucc di nga mën a comprendre l'islam bu baax a baax a baax a baax bu doo réer waaye daal da ngay am problème yaa ngi dégg hmm. Hmm? mu ne waaye su maa indi jiw bu ñu indee bi matlubi ci luñ sàkku. yoo xam ne dinañ génn bii ci moom maanaam wadatul wujub bi ci santaaneeg war. Mm-hmm. sant boo ko defee rek waratul la maanaam si xaayda mata jaa saa yu indee ren bi ci lañ ko digal. Mm-hmm. fay war. lañ mm-hmm. la digal boo ko defee rek. waratul la. dégg nga. waajal xaayda bi mu fi dina am njëriñ la jiddan lool. laal naa nax ñu la xul naa bi ñu wax ne sa ata bu dikkee bi matlu bi ci luñ wa ci luñ sàkku mm-hmm. waaw jaba war nañu alay ci moom an an mu waral na war nañu alay ci moom an yaatee beneen yoon mm. nakkoon day nekk wala waaw jëb naa ñi waral alay ci moom an yaatee mu dikkee bii yoon mm. nakkoon day nekk dañuy nekk xel naawu waral nañ ko benn baadati ci jàmm yàlla maraten ñaari yoon mm-hmm. bu defee li ko li liñ ko sant ba pare ñu ne ko nanga ko defaat ko dafa mel ni ñaari yoon la ko war wa misaalu zaalik rajulun góor xadaratu teewal na ko asalaatu waxtu julli bu jullee rek jeex na ci condition yu man a jullee nag bu tiimoon julli ba pare julli waraatu ko bu jàppoon julli ba pare it noonu boo ma muy julli feebar dafa feebar tudd la man mu tëdd julli bu wéroon léegi di waraatu julliwaat saa yoo defee lañ la sant ci ni ko mënee wàcc na la loolu xaay dara it boo xam ne boo amoon ngant tiim wala nangam nangam waraatul la xanaa dañuy sopp yére wala waraatul la nga julliwaat ndax def nga ko ba pare waaye luñ tënk ci waxtu nag saa yu waxtu bu ñëwee da koy def mais saa yoo ko xasee def ci ni ñu la ko santee wàcc dara waaye juróom góor goo xam si nekkul ne andoo fu moom maawu ndox hmm. fa tee mu tiim وبان عن سلا جناهم جل وجد أنهم الماء ونق فلا يلزم دكور بالإعادة تجبامه فلا نلزمه دمك تقور بالإعادة تجبامه لأنه نحن أدى جوخنا ما علي لكور وأتى ديكنا بالواجب تلوار المأمور لنجل بيتمم كن ولا تلزمه دكور إعادة تجبامه فمتى أتى سعيد ديك الإنسان دمانه بالواجب تلوار الواجب الذي تعلم جاخنا أمير ديكنا لنكو بيتمم فإنه نكو لوار لو يسخط دائرة عنه كما أن المحرمة naka comme na nga xamee lu xaraam ida taaba bu tuubi minu ci moom falaw ñeen la ko masala fa da jiitu bu am loo mbiram ila jëm ni si yàlla lu xaraam la doon def tuub na yi jiitu daal moom duñ ko si topp di des nag ci kanam ko defal bu nekku ne yëfee di def jaay ci riba nanga naam xaalis bi mu ci am moom maa bu dee jullit xam nga loolu mosuñ ko koo may su fekkee xam na àll ñu ma lekk seen àll riba def na a delloo seen àll parce que këpp àllu jàmbur moom ne tuub naa ñee la waa baax na lay jiitu may nañ loolu moom waxuñ ko waaw waaye bu doon defit business bu bon hmm? business boo xam ni jaaduwut hmm, te lekkoo àllul kenn am na liggéey yoo xam ni saa moo ko moo rek dégg nga hmm? waaye doo si jël àllul kenn Euh, jëloo siis ñaq ko kenn xam nga dem di dimbale ay ñun turité société yoo xam ni dañuy liggéey ci yére yu bon ak yu tasaare mbon ci àdduna nga di leen dimbale ñu jële fay xaalis bu am xaalis bu bëree bëri bëri nga tuub xaalis yooyu nga xam ne si noonu nga ko jëlee waaye jëlee ko ci loxo nit ñi xaalis yooyu dañu sopp rek nga def ci loo xam ne nii nit ñi julli ñi dinañ ci jëriñu waaye boo tuubee jeex na fexeel bu boo ko defaat sa kanam mais nag su yéete am nag baax na mais li ñu bëgg mooy nga dem def ko ci loo xam ne nit ñi dinañ ci jëriñu comme tabax si jàkk wala juma wala nangam ñëpp jëriñu ci amaa bu dee nag xaalisu jàmbur nga jël moom boo tuubee da ko war a delloo dégg nga su ko defee loolu bunt bii nag lu jara jara jara jara la lu jër a bàyyi xel la يريد الإسلام واستطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت والإنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته